asbila bisimila inna wali yàlla asalaamaaleykum axlalam seen doomu nday organe borom yéen kaay moo ñëw indi vendredi 24 juillet 2020 ni la demee Malick Thiandoum journaliste sportif ñu ngi jëm ci saison 2020 2021 bu tàng jër rëg-rëg de Guiers 2 moom père Ali di de wax na ci Malick Niang Lac Rose combat boobee ñu ngi koy ruumandaat de gros titre noonu la demee troisième pas ñu dem fenêtre yi comme suñu lamb nu ngi koy defee saa su ñu ne moom guy gi la boo waaw de géejowaay laay laa daanu na de daanu na si piège ki nga xamante moo di Lamine Samba maa la wax lii dugg na si coow li de coow li nag jeexagul si diggante Reug Reug guy gi ba léegi amateur yi ñu ngi koy waxtaane ba léegi amateur yi combat boobule la ñu bëgg la dëgër de moomee adversaire yi yëpp am nañu combat de li ko des lenn dong la du lenn lu dul mu xaar fee saison nag bu bu carte gi wuree ba pare mu soog si jël li nga xam moo di adversaire quatrième pas ñu dem double Tyson signé na de moom ak jamaïcain maa la wax lii signé na xam moo di xoyantaal ne ñu ngi xam ne a a ñu dem ña ginnaaw ñu dellu si waat nag a wane seen bopp du kenn kurukan moom Malick Ndiaye moom Bismi Ndoye gannaaw nag bañ ne rëg-rëg ñii dañ ko tap jàppet rëg-rëg ñi dañ ragal moo tax nanguñ jël avance moom Malal Njaay moomee nee pare naa de dañ ma jox rëg-rëg ndax maa ko bëre maa mun fuuf du sax maag moom ci bu cadre bëre don du man sax moom nañ ma ko jox ma wane ko ma wane ko de amul sax ma dimbali moom Bismi Ndoye moomee del su ne moom tamit de wane na boppam nee nañ ma jox rëg-rëg comme que gars yi ko fay nañ ma ko jox pour ma wan ne fii kenn ragalu fi ki xam moo rëg-rëg sixième diggante Reug Reug ak ki nga di Lac de Guiers 2 nee na ñun suñu plan suñu plan ñun abcd Reug Reug sax bokku ci suñu plan ñun waa Lac de Guiers Reug sax bokku ci li nga xam moo di suñu plan déedéet loolu moom damaa bëgg axlu laa ma xam ko pour mën a noppalu septième pas ñu dem Malick Thiandoum ci ay rajo Malick Thiandoum ci ITV Malick Thiandoum journaliste sportif moom Malick Thiandoum mooy wax de nee na saison bu tàng jër bu saf sap lañ jëm de deux mille vingt Gris Bordeaux Balla Gaye nit munul wax ba raag fa am munul nekk foog ñu raag ñoom ñaar soog a bëree waaw boo ñaar deux tafaati ñoom ñaar rek seen trajectoire moo leen boolee ndax ñoom ñaar ñëpp bëri nañu daan nañu saakajor ñoom ñaar ñëpp daan nañu guy gi daan jos jos daan kii yaa ñoom la ñoom ñaar ñëpp la dëgër de boole leen daan ñoom ñaar seen trajectoire dafa daje kon lamb la boo xamante ñoom ñaar bokkuñu isil ah ñaari mbëri bokkuñu isil mais loolu ci mën a dégg bu mën ko dégg mooy mooy Boy Niang 2 am na combat bu difficile am na combat bu difficile ndax pour mu génn si foog mu manœuvrer moom Tapha Tine li ko daloon diggante moog erreur ak diggante moog ki ndax bu dalee dina ko coûter cher bu baax a baax mais combat bu neex la combat neex combat yu saf moom rëg-rëg doomu caaroy bi kenn ëpp ko problème lu waral loolee mooy guy gi ma nekkoon ci kanamam nag guy gi moom croiser na bara nag na faylu kase bi mu bëgg du bëri ak ki nga xam moo rëg-rëg Sa Thiès garga mboose ñoom ñaar ñoo taxoon ci kanam te ñoom ñaar ñooñee boole nañ leen loolu tax moom rëg-rëg moomee mi ngi ci problème bu sérieux pour am li nga xam moo di jalgati lamb comme ni ñu defee saa su nekk jalgati lamb tey kan ak kan fa nekk Pape Thialis Sa Thiès Garga Mbossé moom Pape Thialis moo wax nee na signé leen contrat bi ma arrière génn seen diggante dem xool yeneen champion pareegu ma moom Sa Thiès mooy ne nee na ko Garga du ma lajj ñaari yoon bag de déedéet moom Garga Mbossé di ko tontu mu ne ko Sa damay dagg bag bi te doo yaa ma koy tere yéen kaay yi papa pëng yéen kaay tey maa ngi may suma xarit suma doomu yaay borom Kër Massar Cheikh Bass Wade jëlal yaay borom seen doomu day organe moo fi jaaroon dem naa wasalaam